waaw fii li mu wax euh, Babacar Diagne boobu ci TGP bi dafa doon laaj ndax takk téere takk gàllaaj dagan na wala arab na. ñu ne defoon naa leer xam nga TGP dafa da ngay limité temps bi da ngay limité da ngay sentir ne tu n'es pas libre ndax dafa euh, ndax limite bi. Ah, waaw limite bi defee yu bari surtout euh, première fois bi. doo am disposition yi nga waroon am yëpp doo ko am ah. ak possibilité yi. léegi euh, dangay ngay gis ñu jàng aslëf ñu bari ñu bëgg a dugal ci bopp nit ñu ne takk gàllaaj araam na dara gënu koy juumte ci àdduna xadis bi leen wàcc mooy man àllaqa tamimatan faqad kafa ku takk tamima weddi nga moo tax ma ne xadis lu jafe la lu mat a jàng jàng ba xam baati arab yi rek fab téere xadis mu wóor la xadis bu wér la téere bi xadis bu ci nekk wér na yomb na waaye taxul a xam xadis waxoon na danaa misaal toujours xew-xew boobu xewoon diggante ibnu Shubruma ak ibnu abi Layla ak imam Abu Hanifa toujours ma di ko misaale ci mbirum xadis ak mu demee man àlaqatan nag faqat kafara li ko indil lii la yonente bi sallallahu alayhi wasallam bu ñëwee biñ ko yónnee mu nekk màkk dafa fekk araab yi am ay jëfandiku yoo xam ne tradition la woon ci seeni maam ñu daan ko def yooyu yëpp wuuteeg li lislaam indi arab yi dañu daan def bu ñuy tukki dañuy jubal genn garab dàq la ca nekk ci picc bu ñu naawee picc ma bu naawee jëm sowwu lañ doon defee ñu bàyyi ko bu naawee jëm penku jëm ndeyjoor ñu ne baax na dal di dox yoon bi ñu amoon li ñuy al islam xërëm boo xam ne dafa taxaw nii ñu ay bant ay islam yoo xam ne da ngay dikk wëndeel bant bi benn bi ñetti bant la bii dañ cee bind al amir bii ñu bind ci an naahi bii ñu bind ci al mutarabbis al amir mooy defal annaahi mooy bul def almutarabbis mooy muñal ba beneen jamono boo wëndee wëndeelee tëralee poignée bi bant bi génn nga xool liñ ci bind bu dee al amir nga dem bu dee tukki la bu dee xare la bu dee lu mu doon rek bu dee wuti soxna la da nga ko def bu dee annaahi nga bàyyi bu dee almutarabbis mooy muñal ba beneen jamono ñu gëm loolu ñu gëm itam ne ku takk sàllu cool yi da ngay gudd fan moog dojaru lépp ñu gëmit ne tàggum benn picc bu ñuy wax xoob ku ci jël benn ban takk ko danga nga bari wërsëg ak yu bare bare bari yoo xam ne caaxaan yooyu la woon kàggum cool yi boo ko takkee da ngay sàmm cool yi da ngay gudd fan loolu daa nañ ko takk tamima yooyu mel noonu mooy tamima yooyu nag yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñëw ne man àllaqa tamimatan faqad kafara képp ku gëm ne lii mën na jëriñ dara weddi nga li Muhammad indi sallallahu bis mu ne ndax xam ngeen lu buur bi wax ñu ne ko déedéet muy wax ne ñaar nee na te fekk dafa taw ba séet kii ne biddiw sàngam moo nu tawal ne weddi na yàlla kii ne suñu borom nu tawal moo moo nekk ci tawxiid yu mel noonu nga xam ne arab yi dañ koo gëmoon ci la tamima bokk mu dikk nag ngir dindi loolu tamima bi ko arab yi wax l'islam ñëwagul te ay doj la woon daan doon wala ay bant yu jóge ci tàggum dara wala yax wala leen yoo xam ne dañu foogoon ne lii mën dara ñu di ko takk mën na leen fegal dara wala mën na leen xëccal lu baax lu ñu bëgg wala mën na leen indil njiglaay wala wala gaaf yooyu la moo tax ñu man àllaqa tamimatin faqad kafara tamima loolu ko tax a jóg loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tere ñu takk liñ ciy bañ mooy wax joo xam ne xamuloo lu mu tekki xamuloo kéefar ngi ci biir xamuloo ay foo yu jinne la ñuy jëy leen teg place yàlla nga xam ne dafa seet ba xam ne yàlla doo nga mën kenn mënul dara lu dul yàlla mënulee gisul yàlla ba mën koo jàpp takk ko waaye wax yàlla ci yàlla la bokk ndax meloom la bu fab aaya alxuraan takk ko wala turu yàlla kooku tawxid la wane na ne kenn mënul dara lu dul yàlla damaa wal bi damaa dellu si wéeru yàlla kooku tawxid dëgg la ci gëm yàlla ngoog léegi nañ seet téere fiq yëpp yëpp ngi ci jàng yëpp seet ko benn bu ci nekk amul benn boo ci xam dana la wax ne la takk gàllaaj maanaam bu dee alxuraan wala tur yàlla araam dañ la wax sax ne la boo dee dugg ci duus bi nga xam ne bërëb bu sobe la boo amee gàllaaj maanaam bu dee alxuraan wala tur yàlla araam dañ la wax sax ne la boo dee dugg ci duus bi nga xam ne bërëb bu sobe la boo amee gàllaaj fu ñu ko teg ba dugg même bu jaaro bi nga teg sax tur yàlla ngi ci locc ko teg fi ba dugg ba génn nga solaat ko loolu la ñuy wax seetal dem charage risalati ibn abi zayd al-qayrawani da nga gis wax ko ci boo seetee xalil da nga ko gis boo seetee téere da nga ko gis mag ñi jàng jeexal seen dund dund ay juróom-ñetti fukki jeexal seen dund yëpp ci gëstu lislaam ak xam ko nekk si téere yi fi nekkoon yëpp yu jógee fenk yu jógee seen soow yëpp ñëw fi kenn gisu ko ci ba ci at yu mujj yi naar yi bëgg a dugal ci suñu bopp loo xam ne amul woon duñ ko nangu <laughs> duñ ko nangu politique la nag te ñi ci topp ñëpp nag dañoo xamul na mu demee xamuñu la xew du ma ko mën a wax ndax publique la te politique la waaye bokkul ak lislaam lislaam lislaam léegi boo seetee dañ ne xadis bi ci gën a wér mooy sayxul buxaari ak sayx muslim ñoom ñaar nag far xadis bu ñu daje lu dul alxuraan loolaa la gën a wér ñoom ñaar ñëpp daje nañ ci ne boo dee takk gàllaaj walla ngay muslu wala ngay jat baat boo xamul baat wax joo wax joo xamul rek bu ci nekk waaye bu fekkee ne mm, wax joo xam ne turu yàlla la moom taxul ñuy wax dégg nga barkeelu la non seulement barkeelu waaye tawxid la bu dee itam alxuraan noonu kon eh, wattandiku ci baat yoo xamul am na gis nga yoo xam ne kon man daañu ko wax ko bind ci espèce d'istixaar la mas naa koo def dama koy balu suñu borom ndax waxi ajam la lu doy doy waar la boo ko defee li soxla si ngay laaj moom mm, da koy daal di gis bu leer a leer a leer waaye gannaaw waxi ajam la te xaw ma lu mu tekki maanaam du arab du làmmiñ mu ma dégg euh, dañ ko baab ma ci dugaloon du ma mag booba waaye dootuma ko defee dañ ko bu soobee du ma ko wax itam kenn di ko dégg di ko def ba ay juróom benni baat lay jege yomb <laughs>